salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi nuyu naa ñëpp seen mbokk la professeur Abbas ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp mu mel ni am na mbokk mu doon laaj ñu ñëwal ko ci stress ndax eh, yàgg nañ di ko junj ci sunuy waxtaan stress bi nga xam ne ñu bari eh, gàllankoor na leen ndax man damay faral di wax ne jàngoro yu bari danañ wax jàngoro sàngam bactérie sàngam moo koy joxe wala virus sàngam wala microbe sàngam wala parasite sàngam fekk rek li ko gën a joxe sax mooy stress waaw mooy cëslaayu jàngoro yu bari fa la ñuy tàmbalee te moo tax jàngoro boo koy faj da ngay commencer ca. wala mbir sax boo ko bëggee mu teggeeku la dangay commencé ci reen ya nag waaw su doon tawat bi ah, dañ koy misaal ci ci garab garab eh, reen bi mooy stress rek parce que da ngay stressé stressé ba lu ñëw dugg la waaw bopp bu tëju lay àndal ngay mel ni ku jànnaxe eh, sa xel mi du fi ne xalaatu àddina sonal la yooyu rek mooy daje rek ab cocktail la rek li ñuy tuddee cocktail waaw boo ko defee loolu mooy stress koo gis nag mos naa stressé kon mën ta ñàkk surtout jamono ji ñuy toll di stress sax yomb na waaye am na ñu ko mën a gere la lañ dañ koy gérer kon nag stress bu bi nga xam ne dafay jaar jàll lu jaadu la kenn ku ne mën nga yeewu tey mel ni ku stressé waaye bu subaa mu mu bàyyi la. loolu loolu lu passager la luy jàll bokkul ak stress bi nga xam ne dafa chronique waaw am na ñi nga xam ne stress bi ñu àndal bi ñu àndal dafa dafa dafa dafa chronique waaw dafa chronique waaw bu ko defee rek euh, moom gàllankoor la te gis nga nag euh, stress moom euh, gis nga ñaar nag moo koy waral li cëpp waaw ñaar rek boo ko doon maanaam boo ko doon jéem a jéem a jéem a saytu danga naan ñaari mbir la boo seetloo li ci moo koy tegee waaw am na nag yeneen waaye ñaari da ci gën a da ci gën a fës mooy ki nga xam ne dafa am jafe-jafe eh, organiser wu waaw organiser ay xalaatam ay bëgg-bëggam waaw rek waaw soo amee boobu jafe rek stress daf lay yomb ak ki nga xam ne dafa wóoluwul boppam kooku day faral di stressé waaw kii nag moom jafe-jafe la bu nekk ci moom ndax mënul organiser àddunaam ba ba da koy jural stress fu mu waaye kii nag dafay stressé parce que dafa amul confiance ci boppam am na nit ñi nga xam ne wóoluwuñ seen bopp ndax lu bëri buñ ciy dugg sax dañuy dañuy échoué ndax fañ na fañ waroon tàmbalee mooy am confiance ci seen bopp amuñu ko ñooñu dañuy faral di stress rek. waaw ñaari dañ cee gën a fës nag waaye am na xëy na yeneen xeetu cause yeneen yi nga xam ne moo koy waral euh, ndeysaan coow li ci biti samedi bi macha allah waaye defe naa li may wax dina leer rek euh, am na stress bi nga xam ne nit dina ko jëlee ci bërëb ba muy liggéeyee waaw nit dina ko jëlee ci bërëb bi muy liggéeyee euh, waaw sa digganteeg ñi la yërëf ci liggéey ba wala kenn ci bërëbu liggéeykaay bu mën na laa teg stress ndax déggoowu leen ba ay gàllankoor am ci eh, loolu xeetu stress la wala sax mooy sa mooy sa liggéey bopp booy liggéey waaye nga gis ne liggéey bi doxul mu jural la stress waaw wala muy stress bi nga xam ne da nga liggéey liggéey bu jéggi dayo da nga surmené li ñu tuddee surmenage waaw kooku xam nga dina waral stress waaw wala mm, nga am jafe-jafe yaa ngi liggéey waaye teewul rek yaa ngi ciy jafe-jafe ndax liggéey bi jurulu la dara ci wàllu am-am am na ñi nga xam ne loolu mën na leen stressé waaw am na ñi nga xam ne seen stress dañ ko jëlee ci mel ni mbir buñ mësa dund rek metti lool mu metti lool ba loolu topp leen nag te te te leen a bàyyi moo tax ngëm am na solo boo amee foi dëgg li ñu naan la fois ngëm yooyu mën na mën nga mën nga cee mën na la bañ a sonal ëllëg ndax dangay ngay borom bi foo toll rek waaw lu mën a xew rek waaye su dee nag psychologiquement sa bopp attanul yenn yi am na yoo xam ne boo ko dundee sa àdduna rek mën na la juróol benn stress bu yàgg ci yow waaw. am na stress bi nga xam ne nag ci nit ki la mooy nit ki nga xam ne dafa am timidité bu jéggi dayoo waa li ñuy tuddee timidité mooy eh, ki nga xam ne xëy na dafa noppi lool mandu lool lool lool ba mu ba mu jéggi dayoo nag moo ko defee rek doo duggalante xëy na nit ñi lu bëri yu demee noonu yow sa bopp loolu timidité boobu sax mujj laa def stress kooku it xeetu stress la waaw kon nag gis nga gàllankoor la. li tax muy gàllankoor mooy stress bu yemoon ci ne da ngay stressé sa bopp tëju euh, xalaat ordre yi nekk ci yow yem foofu rek ñu ne baax na ñu ne ah mën nañ mën nañ ko muñ waaye du yem foofu dafay daf lay laal nag ci yeneen aspect ci yeneen anam daf lay juróol jàngoro waaw stress dana la jural ñàkk nelaw waaw stressé nga boo tëddee doo nelaw waaw daf lay jural coona waaw nga ba mu mu war nga ngay sonn foo toll waaw wala mu mu lay merloo nga stressé bu mu jural la mer ngay nekk nit kuy mer foo toll waaw waaye stress dina jàpp yeneen anam nag ci ci nit ki ndax dina dem ba jàpp nit ki ci ay yaxam waaw yax yu metti dina jàpp nit ci wàllu bëgg-bëggam ci wàllu sëy muy góor muy jigéen waaw stress stressé ba yow sa xel du nekkati ci soxna si wala bu dee soxna si moom sax xelam du nekk ci ci ci ci borom këram waaw stress dina jàpp bopp waa nga doon ku amee tuuti li ñuy tuddee dépression wala ngay fàtte lu bari waaw ngay fàtte lu bari wala sax bu doon kuy saytu la nga kuy jàng doo doo doo doo mën a teewlu loo jàng fàtte ko waaw ndax ñu leeral ne stress ñëpp la mën a jàpp day jàpp xale day jàpp mag day jàpp góor day jàpp jigéen day jàpp mag day jàpp ndaw waaw wax naa ko foofu laa tàmbalee xale wala mag kon ñoom ñëpp kenn ku ne stress mën na la dugg waaw léegi nag stress bi ci bi bi bi mooy bu chronique nit ki nga xam ne da ngaa stressé stressé stress bés boo yeewoo yaa ngi ca ndeysaan bés boo yeewoo yaa ngi toog sa ruq xalaatu yi bëri nañ yaa ngi mel nii ku amee ay gàllankoor mënatul sax duggante ak nit ñi waaw stress bi dem ba jéggi dayoo ci yow waaw li ci yem mooy bu booba mën na la jural jabet ndax stress bu yàgg ci yaram dafa yëkkati sa day yéegal sa tuwu suukar ci deret ji te loolu mooy jabet kon nag stress bu ko doon di gis nga dafa liyee ak jabet waaw xam nga jabet dañ naan rek wàññi leen suukar ndax suukar da joxe jabet waaye gis nga stress ni mu ci mënee nekk responsable waaw dafay yéegal cholestérol stress dafay naxasal say soldaadu yaram sa système immunitaire waaw ba jàngoro ji ñëw dugg la waaw soldaadu yaram buñ nasaxee lu ñëw dugg la waaw dafay waral nga amee tamit li ñuy tuddee ay dépression waaw stress dafay jur li ñuy tuddee anxiété ci tubaab waaw dama naan stress bu doon am mag dañ naan anxiété mooy magam waaw kooku moo ko féete kaw waaye loolu ci stress lay commencé waaw waaw waaye am na jàngoro yi nga xam ne moom lu leer ba leer ñoom dañoo lii ak stress bu chronique waaw muy muy taw bi ñu tuddee kolopati stress bu yàgg da koy waral tawati gastrique waaw yi jàpp estomac stress bu yàgg da koy def tension bu yéeg tawati xol waaw eh, eh, wàllu gis mbaax bu tardé ci jigéen waaw nga toll ci gis mbaax muy tardé def retard yi ci ëpp stress da koy waral waaw moom la ñuy tuddee trouble les règles rek waaw waaw muy tardé fekk say hormone ñoo jaxasoo te lii la ko teg mooy euh, danga ngaa stressé waaw am na jàngoro yi nga xam ne stress da koy tege lii am na bi ñuy tuddee polyarthrite kooku stress da koy tege waaw gis nga stress day dem ba def màndarga ci ci deru yaramu nit ki gis nga taw yi ñuy tuddee xam xam. teg muy feeñ ci daw deru yaram stress da koy tege waaw da koy tege nga stressé ba mu def màndarga ci sa deru yaram waaw jàngoro ji ñu ñu ñuy tuddee xam stress da koy tege waaw kon nag ngeen dégg ci ne moom it euh, mbir la wax dëgg yàlla ndax yii yëpp mën na koo teg nit ci ci ci gàllankoor moom ci nag bi ñuy tuddee stress oxidatif kooku it xeetu stress la waaw am na ñu ko tuddee stress oxydant waaye am na ñu koy tuddee stress oxydatif te baat boobu moo ci gëna moo ci gën a moo ci gën a siiw waaw liy oxydé wu nag mooy li li li li liy xomaat waaw kon stress am na bu yemambaay nga xam ne luy jaar jàll la am bi nga xam dafa dëkkaaleeg nit ki am na bi nga xam dafa dafa dem nag tey bu ñu ko doon méngaleeg ah, ab weñ dañ naan weñ wu xomaat la dafa da ngaa stress stress bi doon lu xomaat ci yow boobu nag dafa garaaw moom la ñuy tuddee stress oxydatif soo soo sooy dund stress ba toll ci niveau boobu nag mën na la mën na la jural tawati cancer ah, ndax say soldaaru yaram dootuñu mënati dékku yooyu ñu tuddee les radicaux libres radicaux libres yooyu ñooy dugg ñooy dugg nit ki suñ ko duggee mu jural ko tawati cancer waaw ah, boo defee boo boo amee yenn xeetu stress yi nag eh, yooyu macha allah doo. Euh, soldats yi tamit duñ ci mënati dara mm, ndeysaan stress boobu mën na xëy rek yural euh, cancer yow mii nga xam ne yaa ngi koy dund kon nag jar naa fegu fexe rek ba wàññi ko fexe ba doo stressé lu bëri comme que mënta ñàkk ndax bu bëree rek mm, gàllankoor bu ne mën na ko waral waaw kon nag stress dañ koy gérer dañ koy gérer doo wax ne damay naan garab gu may teree stressé dootuma stressé ndax. nit ku ne da nga xëy stress dugg la waaye mën nga koo gérer boo ci tollee ba du so du métti lool wala nga ciy gëj a toll it waaw loolu moo ci am solo waaw bokk na ci yi nga xam ne nag gis nañ ne moom mën na la ci dimbale stress xëy na du la sonnal wala du bëri lu mu lay lu lay dal day def sport waaw sportif yi duñ faral di stressé waaw jamono joo ciy nekk du stressé waaye bu dee danga nga ko aadawa sax wax dëgg yàlla dafay dafay dafay dafay wàññi stress sport baax na am na ñu ko xam ba ñoom dañ ciy nekk rek am na sport bu ñu tuddee yoga xëy na bëriwul ñu ko xam waaye lu mën a dindi stress la ñi ko xamul it yeneen xeetu sport yëpp baax nañu waaw wala ngay am toujours occupation am looy def daal waaw am na ñi nga xam ne dañuy def lu ñu tuddee bricolage foo leen fekk seen kër ñi am ah, foo leen fekk daal ñu ngi ñu ngi ci dara ndax ñoom bu toogee rek xalaatu àdduna xalaatu àdduna da leen dominer ba jural leen stress moo tax foo leen fekk ñu ngi ci dara ñu ngi bricoler waaw ñi ñu ngi eh, ràbb ñi ñu ngi ci ay mbir waaw kenn ku ne noo ko mënee rek waaw yooyu dafay dind dafay dind eh, stress waaw bokk na ci nga xam ne mën na ci dimbal nit mooy nga am occupation divertissement xëy na ngay seetaan film nga xam ne da nga ca reetaan tuuti ndax baax na wala boog di nga di ree waaw ndax mbokk mi dafa doon wax ne ree ak reetaan du benn waaw reetaan sabotage la waaye ree nag moom baax na waaw bu reelu ah seetaan film bu reelu wala ay document yi nga xam ne yu reelu lañ waaw euh, tuuti comédie tuuti humour yooyu dafay dafa lay libéré ndax soo ree rek day mel ni benn poussière dépoussière nga sa sa biir yaram te day mel ni euh, stress de poussière la fa def ree boo ree rek am na poussière bu bu génn waaw nettoyé nga tuuti ci poussière ba ba keroog muy set wecc kon rek ree daf la ciy dimbale waaw waaye nga doon nit ku positif ci sa àdduna nit ku positif nag mooy nit ki nga xam ne lu ñëw rek da noo koy noo koy noo koy gàttandoo waaw ko gàttandoo jamais ci fànn wu ñaaw da koy jàppe rek lu rafet rafet waaw ko defee doo doo doo ci xalaat yenn xalaat yi lu ñëw rek daam daam foo koy teg bu ko defee loolu du la sonal waaw nit bu waxee rek da ngay jàpp lu mu wax waaye bu ci jéem a xalaat leneen ah boo demee man lay attaqué wala boo demee man lay waxal bu ko defee loolu nga doog di xalaat mu jër la benn stress waaw yow jàppal li mu wax rek nga jàpp ne garaawul bu ko defee jàmm ngay am waaw bokk na ci nga ne tamit di dimbali ci stress mooy massage soo nekkee sa soxna mu lay maase waaw mu lay maase waxuma danga yooyu waaw mu lay maase Euh, loolu def lay soulager ci stress waaw yow it ku góor ki nga maase sa soxna ak li ñuy tuddee câlin yéen ñi jàng tubaab câlin baax na ci stress Sénégal nag ñu bari duñ ko def waaw câlin nga ñëw kott sa soxna wala mu kott la nga raay ko wala nga def ko sa sa doom sa doom sa da nga koy def câlin waaw câlin câlin câlin moom day faj stress yenn saa yi nga fekk ci nit nga ne ko kaay mu ñëw. nga def ko câlin bu ko defee ren ndeysaan loolu daf koy remonter le moral li gars yi tuddee remonter le moral stress bi dañ waaw câlin nag moom war nañ koo war nañ koo saxal ci mim réew ndax garab la ci stress waaw nit yenn saa yi day bëgg ku ko tiye xam nga euh, sës ko ci moom fàttaloo ko yenn jafe-jafe àddunaam da nga ko def sa soxna sa soxna mun na la ko def war nga ko def sa doom ñu la jege war nga leen koo def waaw baayo baayo bi nga dëkkal sax war nga koo def waaw ndeysaan yenn saa yi mu toog xalaat yaayam yaay ji fu jugee wala baay ji fi jugee nga jox nga def ko benn câlin bu ko apaiser bu ko defee loolu dina dindi stress boobu nañ koy def waaye eh, nañuy def nañuy defante ay câlin ci ñi nga xam ne nag daggan na ci ñoom ndax ñun suñu diine def dafa encadré lu bari waaw mayu la xëy na nga kott jigéen ji nga xam ne lew la ki ki nga xam ne dagan na la bu ko defee nañ ci nañ ci bàyyi xel di nelaw nag normal waaw nelaw baax na dafay dindi stress bi waaw di nelaw waaw gis nga ba alimentation am yi nga xam ne dañuy yokk stress suukar su bëri dañ koy tere waaw kon nag boobaa lekk yu bëri suukar nga moytu ko nga moytu ko di noppalu moytu nag am ay xarit yi nga xam dañu teg stress am na am li ñuy tëdd les faux amis waaw fu amee baaxul da ngay wut ay vrais amis nga xam ne duñ la teg benn gàllankoor ndax stress moom loola leer na lii dala koy teg rek daw ko jëm ci leneen waaw bokk na ci eh, xarit yi rek lor nag cigarette sàngara waaw ak yenn yi ñu tuddee stimulant yenn xeetu lekk wala naan yi nga xam ne daanaka bëriwu njëriñ lu dul ay gàllankoor ak lañ lay indi bu boobaa it da koy da koy moytu kon daal lii lañuy ñuy moytu stress ndax mënta ñàkk nit ku ne mën nga xëy stressé waaye lu ñuy gérer la boo ko gérer rek rëcc ci kon nag ñu bàyyi ci xel ñun ñëpp rek ndax yàlla suturaal ñu bu ko defee rek ñu am na tisane yi nga xam ne nag day dalal nit waaw ndax stress dafay jàppi nerf te yii boo koy jël dafay dalal say nerf bu stress doo stressé lu bëri di def infusion wu naanaa naanaa nga def ko ci sa baraada infusé ko ndox mu tàng xel li ci kaas naan suukare ko lem waaw lem rek di ko jël de temps en temps dafa lay apaiser waaw am na naanaa bu ñuy tuddee mélis xeetu naanaa la ñi ko xam te mën ko am moom it nañ koy jëfandikoo lu bëri di ko def dix ans di naan ndax dafay dalal dafa leen dalal ci wàllu stress waaw chocolat chocolat dafay dafay dindi stress waaye chocolat bi may wax nag mooy bi ñuy tuddee chocolat noir soo demee ci supermarché di nga ko fa fekk nga wut sa benn carré de chocolat noir waaw ñu bëri na dañu jàpp ne mbiru tubaab la du mbiru tubaab de dafa baax ci stress waaw ngay jëfandikoo chocolat noir di ko jël dafay dindi sa stress waaw kooku nañ ci bàyyi xel citronnelle citronnelle def ko infusion di naan moom dafay apaiser say nerf ba stress du la yomb citronnelle waaw dañ koy infuser rek def ci sa cafetière def ci ndox mu tàng ub ko bu nuggee nga xelli sa kaas naan même bu dee bés bu ne benn yoon baax na cacao waaw di ko jëfandikoo dégle nañ ko ndax it dafay dalal nit waaw cacao poudre poudre de rek moom ndox mu tàng nga koy nga koy booleel bu nuggee nga naan mënees nañ ko sax ndékkee kon nag yi dafay dimbale nit ci wàllu stress te mu doon gàllankoor bi nga xam ne jàngoro ju ne mun na ko waral kon nag lu mat a moytu la lu mat taxaw la moom stress dafa dafa mën a sonal doomu aadama bi xam naa loolu moo doon waxtaan wi tey balaa ñuy tëj rek ma fàttaliwaat saa yu ma waxtaanee ba pare comme ni ma koy defee ma fàttaliwaat garab gi nga xam ne man maa ko liggéey man professeur Abbas tuddee ko la roquette la roquette nag day faj ne néew kattan góor gu néew kattan ci sëy stress bi da koy waral góor gu néew kattan mu yàgg ci yow wala mu doog laa dal moo ci yem waaw del jëfandikoo la roquette waaye baax na ci wàllu seere ak ballonnement ak euh, yaram wuy métti ak coono. ñi soxla la roquette nag mën nañ ma woo bu dee ñi ngi Dakar ak fu ñu mën a nekkee ci sama numéro 77 786 65 19 ñi ko soxla te dëkkee Mbour mën nañu woo Imam Dieng numéro 77 636 66 36 ñi soxla la roquette te dëkkee Touba nañ woo sëñ Moustapha Diop numéro 76 383 87 34 su dee ñi dëkkee. Kaolack nañ woo oustaz oustaz oustaz Alioune Babacar Faye numéro am 77 121 79 49 salaamaaleykum wa rahmatullah